sans plus tarder je vais passer la parole à notre coordinateur national Maître Ngagne Demba pour qu'il fasse l'économie de notre regard sur le sujet. À sa suite, vous aurez l'occasion de poser vos questions et le rôle à l'amabilité pour répondre. Merci. merci beaucoup Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, ñu ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant euh, di tàmbalee nuyoo bi ci yéen ñi nga xam ne yéen a ñu wuyu ci muy la presse euh, di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo feggoog ñun ci jotaay bi muy les membres du bureau exécutif national de la JPS et des coordonnateurs départementaux essentiellement de la région de Dakar di kontaan ci war a jàkkaarloog yéen pour waxtaan ak yéen. ci situation politique nationale et internationale balaa loolu nag ñuy ñaan ku ne à travers une minute de silence bu ñuy observer ñi ñaanal ñi nga xam ni ñoom la yàlla def ñu faatu ci ay tragédie yoo xam ne am na ci réew mi muy ay accident muy li jóge jëm ci immigration irrégulière bi ak bépp phénomène boo xam ne am na notamment inondation yi nga xam ne am na fële ca Touba donc ñu observer une minute de silence de silence à ñu ngi ñaan ñoom ñëpp yàlla jéggal leen yàlla yërëm leen yàlla xaare ko aljana xaar leen alja xaare leen aljana waaye nag di wax ni gouvernement bi lépp lu war a def ci ay mesures mu ngi ci ci ay mesures yoo xam ne cela relève de l'urgence waaye nag ay mesures yoo xam ne ak ay xalaat yoo xam ne ay programme yu structurel la yoo xam ne loolu ñu fekk fi ci ay jàngoro dafa laaj liggéey ci planification bu sérieuse planification bu rigoureuse jël ay mesures nag yoo xam ne képp kuy lépp luy service u état wala képp kuy acteur ci service yooyu ñu mën a wax ne lii mooy sa sa bi nga war a jouer mais aussi population bi nga xam ne am nañu un rôle à jouer ci sensibilisation ci accompagnement de l'État pour nekk ay relais communautaire pour fléo yu mel ni immigration irrégulière ñu mun ko régler mais lu mel ni inondation ñu impliquer les communautés dans le dispositif de lutte contre les inondations point de presse bi nag day porter essentiellement sur l'actualité politique nationale ndax nag li ma jiite ci bànqaas bi nekk Pastef mooy JPS di jeunesse patriotique du Sénégal dafa nekk mouvement bu bokk ci parti Pastef parti Pastef nag di parti boo xam ni moom ak ay alliés ñoom la sénégalais yi woteel ci élection yi ñu jugee 24 mars dernier jox leen 54 pour cent dès le premier tour nga xam ne ñoom ñoo yore le pouvoir wala ñun ñooy les tenants du pouvoir pour wala doxal réew mi en tout cas le pouvoir exécutif dafay laaj nag am na foo xam ne bu fa réew tolloo ñun ñi nga xam ne humblement bokk nañ ci sénégalais yi demoon laaj baatu sénégalais yi ñu wax leen fan la réew mi toll ak lan moo war a doon taxawaayu kenn si képp ku nekk si ñun ci loolu nag dinañ ñëw ci ban yoon le président de la république basiiru Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement bi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko ban yoon nañu xàll ak ci lan nañu nekk bu loolu weesoo dinañ ñëw ci taxawaay bi nga xam ne yeneen sénégalais yoo xam ne fii nañ juddoo yaroo fi màggee fi même su dee dañ ci lënkaloog ay nit ñu nekk bitim réew taxawaay bi ñu war a taxaw nag na dañuy xëpp suuf ci li nga xam ne mooy volonté wu yi pour soppi réew mi définitivement bu ñu paree dinañ ñëw ci lan moo war a doon taxawaayu sénégalais yi mais lan mooy doon taxawaayu patriotes yi et essentiellement les jeunes patriotes muy ñi bokk ci GPS lan moo war a doon seen taxawaay surtout nag ci li ñu dëgmal mu une élection historique une élection décisive muy élection législative du 17 novembre prochain dañuy wax ne nit de boo yëkkatee sa loxo laaj ne dama damay laaj ngeen dénk ma réew suñu la dénkee dafa am loo xam ne ci nga war a jiitoo le président de la république li mu nekk depuis de avril bi mu waatee ba léegi weesuwul juróom yi te étape bu ci nekk dafa am sacrifice yu mu laaj te am na ay actes yu ñu ci posé li jiitu woon mooy réew boo ko waree gouverner damay faral di wax ne du responsabilité de gestion kese mais responsabilité d'incarnation la yow mi jiite askan wi fan nga bëgg yóbbu réew mi ak nan nga gisee réew mi ak ban yoon nga ko bëgg a jaaral lan mooy marque de fabrique de ta gouvernance te loolu li si jiitu mooy am ay valeur lan mooy say valeur parce que classe politique bi am na ñoo xam ne bu ñuy wax da ngay gis ne prédation pillage des ressources naturelles dafa bokk ci seeni valeur am na ci classe politique bi ñoo xam ne accaparement des ressource publiques dafa bokk ci seeni valeur il faut que ñu wax lan mooy valeur yi caractériser suñu gouvernance pour bépp acte bu ñu posé lan moo tax ñu posé acte boobu c'est extrêmement important ñaareelu mbir mi mooy ban vision la ñu xàll ak fan lañ toll ci vision boobu boo amee say valeur ba pare valeur yooyu mooy guider sa action à travers une vision parce que loolu la ñuy laaj njiit njiit dafa war a visionnaire ñetteel bi mooy yan nit ngay teg pour ñu doxalal la vision boobu ak loolu fan la ci président de la république toll ñeenteel bi mooy ginnaaw bi nga amee vision bi teg nit ñi la ko war a doxal mais li ñu la dénk il faut nga càmbar ko xool fan la toll mooy def diagnostic bi bi nga xam ne xam góom bi fan la nekk parce que nag boo xamul sa jàngoro doo ko mus a saafara ndax ku sa bopp di métti ngay naan garabu biir doo mus a wér juróomeel bi nag mooy boo xamee lii yépp nga am courage nga am courage jëmmal li nga xam ne moom nga jaay sénégalais yi àdduna bi bëri na ay chef d'état yoo xam ne bi ñu leen di fal amoon nañ volonté wu def mais dañuy ñëw fekk benn système ak ay nit ñoo xam ne seeni intérêt personnel la ñuy privilégié ñu jug xëbal la rek nga dellu ginnaaw daal di renoncer ci say valeur mais dal di céder ci seeni pression gouvernement bi nekk fi ak askan wi ko fal du ñu cédé ci pression wu benn groupuscule te loolu dinañ ci ñëw point par point li jiitu nag moo doon valeur yi il faut que ñu wax ni fii ba mandat bi di jeex ñi ñaan sénégalais yeneen mandat et tant que ñu ngi ci bopp réew mi bu ñu nee jub jubal jubbanti duñ ci mës a dellu ginnaaw jub dinañ ko def parce que réew li koy defar mooy jubal. bis bu ñu jëlee réew mi am consensus ci ne ku nekk mun nga def lu la neex parce que dañu war a développer réew mi parce que économie bi lii parce que lële parce que dañu war a indi jàmm dañuy bàyyi ñi ñuy dëngal wala ñuy dëngal kenn du leen teg ci yoon loolu mënta defar réew kon jub dafa nekk valeur boo xam ne président de la république daf ko tenir ak cœur moo waral ngeen gis bi mu faloo bees bokk na ci acte yi njëkk a mooy jël lettre adressé ko à tous les agents de l'administration ne leen valeurs yi laa bëgg ngeen cultiver li ci des mooy yow mi jub tey gouvernant nga fexe jubal parce que président de la république nag dafa waat ne dafay doxal yoon mais moom il est soumis au droit il va respecter la loi mais il va faire respecter la loi te day day day wax ne moom mooy seul sénégalais bi waat ne dina respecter lu loi bi loi bi nag moo tënk ne par exemple képp kuy liggéey ci réew mi nag réew mi xàllal la environnement bu lépp nga liggéey dangay fay l'impôt te impôt nag li ko réguler Saliou Dione mi ngi fi loi la code général des impôts te bu dul loolu constitution bi moo teg principe yi président de la république mënut a woon jaar feneen fu dul ne képp ku war a fay dangay fay. même bu amee ay yombal yu war a am wala ay baale yu woo xam ne gis nañ ne moo war a am dafay tegu ci yoon te yoon dafa aménagé cadre bu ñu ko war a defee ak ci yenn raison nañuy basé ne jiw baal nañ ko lii wala yolomal nañ ni ci lii li ci topp mooy jubbanti réew mi nag te mu neex mu naqari ak yuuxu yu lu mu bëri bëri bëri on va redresser ce pays on va redresser ce pays parce que dafa am quatre vingt personnes yoo xamante ne dañu joxe seen bakkan pour projet bii ono ne doit pas trahir ces personnes valeurs yooyu nag su paree li ci des mooy vision et la vision n'est rien d'autre que bâtir un pays souverain réew bu moom boppam lañ bëgg te dinañ ci ñëw mais réew bu juste nañ bëgg réew boo xam ne dafay am naataange muy prospérité waaye nag ci Afrique boo xam ne dafay booloo te Afrique buy jëm kanam la ginnaaw vision bi nag xam nga lan moo lan lan moo ci tegu parce que vision bi yéen a ngi dégg conseil des ministres démb ci loo xam ne mosul am ci Sénégal ni fal nit mois d'avril tey ñu ngi ci mois de septembre ñu ne le premier ministre présenté na agenda pour pare liggéeyu projet de transformation structurelle du pays may wax nag ñiy coow nit soo amee gis-gis ne dama bëgg a tijji boutique. nga dem ñu ne jox nañ la deux millions wala trois millions pour nga tijji boutique xanaa nag ni nga war a tijjee boutique di nga teg benn système boo koy tijjee wax naka ngay def ba dem uti place barab boo koy tijjee barab boobu ci ban type de place la war a nekk quartier foo xamante ne ñi ñi dañ fay bëri wala ci marché la war a nekk di nga dem lijjanti ko yan nit ñoo lay jàppale sa liggéey ak boo paree ci lan nga war a. accès sa sa plan muy plan stratégique direction yëpp ñu ngi koy def ay plan stratégique état sa vision lu mu pare pare soo ñëwee il faut que mu am déclinaison ci secteur bu ne kon ñi wër naan sénégalais yi projet bi parewul woon damay naan mais ñi est-ce que est-ce que ay ay nit nañ parce que sénégalais yi ñu wax la am nañ xel da nga mën a hériter réew mi ne dama bëgg a tabax un Sénégal souverain am sama monnaie bopp su fekkee mën na mun naa ko am dans un cadre communautaire ma am ko su ma ko mënul am naa travailler ci benn agenda selon ay conditions yoo xam ne bu réuniroo laa koy doog a def da ngay falu si saa si def ko il faut que ñu xam ne sénégalais yi ñuy déglu ñu am xel nañ waaye vision boobu nag moom la ñu wax ne ci fan yu néew dinañ ko présenter sénégalais yi muy vision 2050 parce que vision futuriste la parce que réew mi nag génération yii di ñëw dañ cee bokk ñun moomuñu ko waaye li ci tegu nag mooy ay plan quinquennaux lay am juróomi at yu ne te juróomi at yi ci jiitu mooy redressement te dinaa taxaw ci redressement boobu noonu parce que essentiellement loolu mooy l'axe principal de notre conférence de presse te nag dina am plan master wala programme master boo xam ne ci 10 ans yi muy 2025 2034 duñ ci xuus nag ndax ñi ko war a présenter dinañ ko présenter sénégalais yi bu vision boobu leeree ba pare li ci des mooy nga teg ay nit yu la ko doxalal te teg nit yi avant ngay tàmbali doxal vision bi la te li ci jiitu woon mooy président de la république bi ñu ko fale mu tànn kan moo war a nekk élimaanu jëwriñ gi li tax ñuy jël def exercice bi c'est pour ñu xam fan lañ tàmbalee ak fan lañ jëm parce que dafa am façon argumentation boo xam ne dafa yomb ci politique mooy jël ay bribes jël ay morceaux benn fait ak d'actualité bu am wala loo xam ne sax peut-être fait divers la nga jël ko ëf ko pour ne ñii liggéey ne ñii liggéey ñu déedéet <laughs> non non non nit ñi xam ne ñi dénk réew mi ci juróomi weer ban yoon nañu teg seen tànk te c'est extrêmement important noonu nañuy débattre ñu xam est-ce que ñun yoon bi ñu jël baax na wala baaxul ñu mën a waxtaan waaye yoon bi nga jël fii am na benn xeer fii am na benn suuf non est-ce que yoon bii moo lay yóbbu Sandaga wala yoon bii du la yóbbu Sandaga parcelle la lay yóbbu c'est extrêmement important li jiitu woon mooy tànn élumaanu jëwriñ ñu tànn premier ministre boo xam ne ñëpp xam nañ ne sénégalais yi moom nañ jox bopp mooy l'acteur politique le plus populaire du pays et loolu nag mooy traduire volonté populaire ci acte li ci toppoon mooy au-delà de compétence jub euh, valeur u jub compétence leneen ak leneen yeneen qualité waaye teg gouvernement boo xam ne amul benn sénégalais boo xam ne de bonne foi ñeme nga critiquer gouvernement boobu parce que ñooñu nag ñooy le bras pour traduire la vision du président de la république en acte li ci toppoon te ñu war ko assumer mooy teg ay directeurs généraux ak ay directeurs à la tête de l'administration des administrations publiques muy ministères yi li ñuy wax les directions techniques muy li ñuy wax les structures parapubliques muy établissement public comme nga ne kudd wala ñu ne agence comme ASER wala ñu ne société comme SOMISEN ñu teg fa ay nit ñoo xam ne leer nañu ne gëm nañu valeur yi nga xam ne moom la ànd mooy patriotisme gëm sa réew te nangoo jubal am compétence te nag imposer leen loolu li ci des mooy ñooñu kase yarawuñu administration Parce que l'administration n'est pas que centrale. L'administration territoriale. Le président de la République def mouvement bu am solo pour teg administration territoriale ku nekk fa nga méngook pour jouer ce rôle ci dispositif bi li ci des mooy cours yi ak tribunaux yi ñu teg fa ay magistrats yoo xam ne ku nekk sa place ba nga méngook te surtout post yu gën a stratégique nag ñu teg fa ay sénégalais yoo xam ne kenn mënul natable seen jub kenn mënul natable seen professionnalisme pour ñu doxal justice loolu war a law te mu ngi ci force de défense et de sécurité yi def nañu ko waaye dina law ci diplomatie réew mi lii moo jiitu parce que nit loo am am volonté loo am am vision loo am am ay valeur il faut nga teg administration boo xam ne dina mën a répondre ak say aspiration ndax ku ne fañ la teg yow yaa fay président de la république du hasard président de la république nekk ñu teg photom ci bureau yëpp parce que kooku mooy jiite administration donte premier ministre moo koy jëmmal waaye kooku yoon bi mu xàll xàll ñun bu ñu ñëwee ci administration yi ñu jox ñu li ñu jox ci ay direction yi li ñu njëkk a gis mooy fii mënoo fee def lu la neex parce que dafa am ñi ci kaw ñoo xam ne ñu ngi contrôler lépp li ngay def tous les toutes les structures sont sous contrôle te leer na leen ki ci kaw du la may nga dëngal du la may nga ñàkk liggéey mais li ñu fekk foofu dañu gis ne <laughs> mais ñi fi nekkoon ki leen jiite woon moo leen waxoon ne ku gañewul sa base dama lay dàq xoolu compétence xoolu résultat li ci tegu nag ginnaaw loolu moo doonoon ñeenteel bi ma wax sànq mooy diagnostic bi ñu waroon def li jiitu mooy kopparu réew mi fu mu toll wala nan lañu yore kopp kopparu réew mi muy les finances publiques ngeen dégg ci première conseil des ministres il fallait que ñu def la revue des finances publiques parce que boo déggee yenn sénégalais yi di wax wii fii am na mënd fi ñun ñëpp xam nañ ko te dañ cee war a taxaw rayante parce que ñun ñoo koy dund ñun sénégalais yi au quotidien mais bu ñu la dénkee réew doo def la revue des finances publiques xool est-ce que li ñu waroon a natt yóbbu ko ci mbënd est-ce que def nañu lu toll noonu ci crédit est-ce que li ñu nattoon ne plan décennal de lutte contre les inondations ci fukki at est-ce que alal bi ñu def def nañu ko. est-ce que li ñu war a nattal réew mi ci infrastructure ak li ñu ko doon nattal ak contrat yu ñu signé ci infrastructure est-ce que jaar na yoon loolu moo waral question d'audit inspection générale d'État def ko ak yeneen organisme de contrôle ci administration bi fépp il faut ñu càmbar li ñu jox lan la parce que loolu mooy gage u réussite li ñu nga jox il faut nga càmbar ko parce que ñun discours boobu lañ bëgg a entretenir ak sénégalais yi pour ñu xam ne lii la réew di doxe du réew bu sax sa waajur bu fi jugoon bàyyi la nga donn ko ci alalam wala ngay taaw war a yor kër gi <laughs> li ñu la dénk dañ koy càmbar loolu moo tax ngeen gis premier ministre def daal di informer conseil des ministres depuis le 10 juillet de la mise sur pied d'une commission chargée d'examiner les contrat conclus dans les secteurs stratégiques muy énergie muy loolu mooy dimbali ndaw ndaw ñi ba ñu am xëy loolu mooy financer la développement loolu mooy financer start-up yi loolu mooy tax réew mi am cadrage global bu jaar yoon débat bii nañ bëgg nit ñi yëg ci niveau boobu pour ñu waxtaan ak ñoom réew fan lay jëm dinaa ñëw nag ci ñan ñan ñoo xam ne dañoo jug pour lëndëmal ak une certaine opposition boo xam ne niveau bi bu ñu fa yëg lan mooy seen stratégie et nag on leur fera face ginnaaw diagnostic boobu nag. li ci des mooy courage te loolu mooy point de presse bi li ma doon wax ni yëpp introduction la am naa di ngeen ne bëri naa wax courage parce que lii yëpp boo ko xamee nga càmbar sa réew fu mu toll am say vision il faut nga am courage moom laa wax sànq ci introduction bi courage pour faire face courage pour faire la reddition des comptes ce une trahison contre le peuple sénégalais bu fekkoon ne ñi ñu jàpp en flagrant délit de détournement de deniers publics ak ñi nga xam ne fekk nañ ci ñoom ay rapport yu leer te war a dem répondre devant les juridictions foofu la ñuy répondre du ci presse bi ñu bàyyi ñooñu ñëpp génn réew mi après sénégalais yi duñ jot seeni alal ñoom ñi tëdd ci hôtel yi di noos ce serait une trahison contre le peuple sénégalais et les personnes qui sont placées à la tête de ce pays ne sont pas reddition des comptes boobu nag dafa laaj ban juridiction moo koy def ñu fekk fi ñoom loo xam ne ñoom dañ koo def pour protéger seen bopp ñu ne leen déedéet loolu nañ leen di toppee topp ku def yoon teg la ci yoon ku deful lu dul yoon ki ku deful yoon setal la te mooy le pool judiciaire financier te ñu mën cee jéqi ñaar rek ci ay avantages parce que du ñun ñoo ko ñoo ko institué premier avantage bi mooy bokkul ak CREI yi nga xam ne dañoo renverser la charge de la preuve nga xam ne procureur moo lay envoyé mise en demeure ne la ci dur bi boo indiwul firnde ne sa alal bii nga am ni nga ko amee jaar na yoon ñu topp la loolu amul ci pôle judiciaire financier juridiction de droit commun la mën nañu amul renversement charge preuve ñaareel bi mooy li ñàkkoon ci CREI yi mooy double degré de juridiction parce que li ñuy wax dañ koy leeral pour bu ëllëgee bu ko naan justice amut dinañ ko ne yow mi doon jàpp ay sénégalais dans le cadre de la CREI yaa doon wax ne justice am na tey teg nañu benn système boo xam ne dina garantir ñu teg lépp ci yoon. loolu moo waral ngeen gis le procureur général Mbacke Fall barki démb ngeen dégg ko mu naan yaa ayyuha allazina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin mooy li a wane foofu mooy. présomption d'innocence dañ ko war a respecté te CREI respecté wu ko woon jiw clameur publique ne def na rek nga jàpp ko def mise en demeure ne ko indil firnde mënul indi firnde après nga jàpp tëj déedéet yow mi koy topp yaa war a indi firnde kon bis bu état du Sénégal engagé ay poursuites contre dignitaire régime bi état bi moo am devoir à travers le procureur de la République qui représente la société non pas l' état mais l' état peut l' agence judiciaire de ñaari banqaas yooyu dinañ firnde indi ay firnde na ñii ñoo def kon bis bu ñu fi condamné nii di ngeen xam ne ñii caaxaanuñu parce que mënoon nañu li ñi ñuy def institué pour judiciaire financier ay loi la ñu dindi ko raxas ba mu set indiwaat cré yi su boobaa ku bëgg a dem guillotine da ngay dem guillotine parce que man état maa lay topp ba pare ne la indil firnde dafa yomb kon bu fekkoon règlement de compte moo war a am cré yi nañuy indiwaat te am nañ les moyens de le faire même si on doit attendre après la dissolution de l'Assemblée nationale et une une majorité écrasante pour def ko à travers une loi pourquoi ñu bàyyi CREI ne dee na tey yéen ko rey ñu ne amul problème ñu nangoo àtte à travers un pool judiciaire financier nommé fa ay magistrats installé leen te mu leer nañu ne bis bu ñu yëkkatee ne diw ñu ngi koy jiiñ 10 milliards wala diw ba ñuy signé tel contrat pétrolier wala minier laal na nangam ci xaalis ba loolu tax na mu signé contrat boo xam ne dafa salfaañee intérêt Sénégal sacrifier ay génération sur vingt cinq ans ou trente ans état bi ko wax bu engagé poursuite partie mooy indi firnde mais état bu constitué partie civile à travers l' agent judiciaire de l' état dina ko indi dina indi firnde loolu mooy bis bu ñu ci tollee ba président de la république premier ministre ak gouvernement bi génnee li ñu fekk ci pillage di ngeen xam ne caaxaan baaxut caaxaan baaxut kon courage dans la reddition des comptes mais ñetteelu euh, njëriñu pôle judiciaire financier mooy wax naa ko dafay respecter le double degré ñaareel mooy double degré de juridiction mooy duñ la buñ la àttee première instance mën nga def appel parce que am na chambre d'appel ba ci instruction am na double degré de juridiction moo xam phase de jugement ñaar yëpp am na double degré de juridiction bu ñu la defee bu boo bëggee demander liberté provisoire ñu bañ ko mën nga mën nga mën nga mën nga mën nga saisir chambre d'appel d'instruction bi. bu ñu la condamné en première instance mën nga def appel loolu amul woon ci CREI mooy ñun respecté nañ àq ak yelleefu doomu aadama ba loolu ñu fekk muy acquis donte ñoom doxaluñ ko ñun ñu ñëw doxal ko te loolu c'est extrêmement important pour ñu xam ne. reddition des comptes boobu courage bi mu laaj dinañ ko def parce que leer nañu ne dinañ ko awale ci yoon yoo xamante ne yu jaar yoon la ñetteelu njëriñu pour judiciaire financier boobu mooy bu ngeen jëlee CREI yi enrichissement illicite rek lay réprimer parce que loi 81 53 la ak loi 81 54 benn bi moo institué cour bi wax ni muy ni muy liggéeyee beneen bi di réprimer le délit d'enrichissement illicite mais pour judiciaire financier lépp luy infraction financière mun nañ ko ci topp loolu nag <laughs> binduñu ko de bis bu ñu toppee nit pour corruption wala concu wala concussion wala détournement de deniers publics wala soustraction de deniers publics wala escroquerie portant sur les deniers publics yooyu yëpp ak leneen ak leneen ci ay infraction financière bu kenn wax ne ñu ngi ñuy yóbbu guillotine non dañu dañ leen ndax yéen yéen a fi teg cour boo xam ne moo élargir champ bi pour infraction yi ñu mun a topp parce que c'est un pool judiciaire financier il ne réprime que l'enrichissement illicite non dafay réprimer leneen ak leneen ak leneen kon loolu dafay baax ñu leeral ko sénégalais yi pour ne reddition des comptes boobu faaw mu am pour ñu situer les responsabilités et gain yi ci amee nag il y un gain financier alalu sénégalais yi ñu delloo ko sénégalais yi waaye gain bi ci ëpp solo te ma bëgg ñu bàyyi ci xel ne loolu lañuy ñuy gën a nag mooy imposer exemplarité wane ne réew mi dootuñu fi nangooti nit ñu dénk la alalu sénégalais yi nga def ci lu la neex sacrifier ay génération ou génération loolu day tax ñi fi nekk tegu ci yoon parce que réew mi bari na loo xam ne buy répété wu comme ay pratique parce que ñi koy def dañu am santiment d'impunité te d'immunité te loolu dafa war a jeex ci réew lii nag bu ñu toogee di ko wax ñaata sénégalais ñoo ñàkk votel voté régime Macky Sall en deux mille dix-neuf te ñu bokk ci 42 pour cent yi ñun ñu bokk ci wala 2024 ñu ñëw votel ñu ñun ñii o premier tour boo leen laajee am na ñoo xam ne parce que mën bi dafay jël seen kër. waaye bëri na ci sénégalais yi tam écrasante majorité da cee bokk au delà de leurs préoccupations matérielles mais des préoccupations immatérielles de gouvernance muy droit yi muy liberté yi muy gestion vertueuse bi war a am ci ci ci ci ci ci ci ci la chose publique kon loolu nag ça fera partie des acquis de ce régime kenn du nag salfaañee ak yooyu parce que dangay coonaan ñii mën nañ ñi mënuñu parce que mën nañ mënuñu dina feeñ te muy gën a feeñ kon nag dinaa taxaw ci courage boobu au la du courage dans le chantier de la reddition des comptes il faut du courage pour faire face aux dernières ramifications du système foofu la ñuy waxee sénégalais yi foofu la ñuy waxee yéen ndaw ñi système bi jeexagul te système bi bàyyeegul te du mus a bàyyi xam nga kañ lay bàyyi bis bu demee ba. ba ñu anéantir ko définitivement et on va l'anéantir incha allah système boobu nag dafa taxawee taxawaayu jàkkaarloo ak jàmmarloo système bi sedewul de te noonu la àdduna musa nekk ba léegi kon bu ngeen bu leen bu ñu bu ñu bu ñu jubilee foog ne gagné nañ 54 pour cent les gens vont le laisser faire anamu 6 mois yi li mu wone ñi doon dénigrer ci presse bi ñu ngi dénigrer ba léegi ñi doon utiliser diine pour dóor suñu kaw ñu ngi koy def ba léegi ñi nga xam ne dañoo encagoulé woon sax ne ay opposant nañ feeñ na ne ñoom mosuñu nekk ay opposant te Ousmane Sonko mooy li ñu gën a bañ ci kaw suuf te dinañ ko gis muy dox ci tapis rouge comme ni mu ko waxee neex na xari ci loolu nañu xam ne nag système boobu bu bëggee déstabiliser réew mi ci ñeenti wàll la bëgg a jaar dama bëgg li may wax ñu bàyyi ci xel bu baax destabilisation institutionnelle destabilisation économique destabilisation sociale ak déstabilisation politico-militaire te bu ci nekk am na fu réew mi di toll arme boobu lay système bi di brandir pour jam l'anti-système mais du ko réussir donc loolu na ko nit ñi bàyyi xel lan moo jiitu woon mooy jot nga ci réew mi dinaa fexe ba institution yi nga xam ne ñooy bànqaasu réew mi ma jaxasee ko ci façon boo xam ne mais yow doo mun doxal réew mi kan moo mun a doxal Sénégal comme ni nga war a doxalee te doo am majorité à l'Assemblée nationale ñu bind assemblée nationale ne leen kaay ngeen dugg ci kaay leen ngeen dugg ci commission bi nga xam ne moo war a càmbar suufu Sénégal ni ñu ko caxat caxatee si littoral bi ci pegg géej gi. assemblée bañ na du ci du ci bokk jugul pour leeral ñu bi ñu wax assemblée kaay ñu def débat d'orientation budgétaire nga xam ne loi organique moo ko imposé te loi organique wax nañ ne mooy loi bi gën a kawe après constitution bi muy LOLF loi organique relative aux lois de finances à travers le mécanisme de déstabilisation institutionnelle orchestré par le système ñu ne non débat d'orientation budgétaire du am ñu leen kaay leen ñu yaxanal alalu Sénégal ci institution yi nga xam ne sénégalais yi neneen dañ ko war a supprimer parce que sénégalais yi ñoo voté projet boo xam ne dafa bind noir sur blanc ne dafay supprimer institution yooyu muy HCCT ak conseil économique social et environnemental système bi jaar ci institution yi ne loolu du am yamul foofu parce que quand je dis déstabilisation mooy chercher à dindi stabilité bi nga xam ne moo war a am gouvernement bi institution la nga ne da ngay brandir motion de censure pour daaneel gouvernement bi yamuloo foofu institution bi nga xam ne mooy la clé de voûte des institutions muy le président de la république nga ne pouvoir bi mu amoon sax pour dé pour pour dindi assemblée man dama koy dindi mooy yaa ngi koy jéem a dépouiller yamuloo foofu nga ne moom pouvoir yi mu amoon ci bu convoqué assemblée nationale ci tel période il faut mu respecter tel délai te moom moo koy def yow nga violé sa règlement intérieur article 97 violé constitution bi daal di dugg ci prérogative am kon nañu xam ne loolu noonu di am du ay nit yuy jug di yuuxu rek comme Abdoul Mbow à l'Assemblée mooy président groupe parlementaire amul sax xel boobu c'est une entreprise savamment orchestrée depuis l'extérieur am ay bras intérieur ci biir réew mi jug pour déstabiliser ce régime sur le plan institutionnel waaye sëñ Ngundu jàmbaar la de le septembre à 20 heures mu jël décision am tas assemblée nationale. c'est pour faire face à l'entreprise de déstabilisation institutionnelle du pays waaye loolu jeexagul li ci des mooy. 17 novembre la moo war doon suñu taxawaay te dinaa ci ñëw kon déstabilisation institutionnelle bi moom déjoué nañ ci benn wàll bu am solo waaye le 17 novembre lay gën a leer te askanu Sénégal lañ jalloo seen baat li ci topp mooy déstabilisation économique gars yi du ñu bàyyi te dinañ def tout pour saboter koom-koomu réew bi pour présenter benn situation bu catastrophique parce que day installer benn psychose pour yàq l'environnement des affaires pour nit ñi ragal investir Sénégal mais loolu du am insha allah xam nga lu tax du am parce que man de bokk naa si ñu gën a tuuti ci chaine bi parce que direction générale laa yor ci côté mine waaye ñëppay daw ci ginnaawu Sénégal xam nga lu tax yàlla stabilité bi mu ñu baaxee stabilité démocratique stabilité sociale stabilité institutionnelle stabilité politique stabilité sécuritaire sécurité bi am bi am ci réew mi waaye yàlla ressources yi ñi baaxee suñu biir réew ñépp a ñu soxla kon ñii wëy di weje weje weje wej mooy dawloo investisseurs yi gars yi li nekk suñu suuf moo leen intéressé lithium bii nekk ci suuf bi dafa intéressé tubaab bi fépp na ñuy daw di la invité fu ne ku ne di daw bëgg audience jox leen ma lii joxleen leen ma tel titre jox leen ma lële ils vont tous venir investir ici parce que c'est un pays stable et ñi nekk ci biir Sénégal di doomu sénégalais yi dinañ gis lu état bi di teg ci mécanisme pour ñoom tamit seen biir réew ñu nekk ay acteurs parce qu'il ne s'agit pas nag ñi si bitim ñi si ñi jugee bitim réew kese ñooy ñëw tedd ci réew mi te sénégalais yi des ci ndool et on défendra avec véhémence les intérêts du peuple sénégalais kon déstabilisation économique boobu na seen xel dal li ci des mooy destabilisation sociale ma bëgg ñu taxaw foofu parce que lu sensible la mooy jaaree ci diine jaaree ci gëm-gëm jaaree ci waaso te am na ñu koy waajal pour ne gouvernement bi nga jëm ko monter contre ñële mais loolu du jàll ndax président de la république fu mu déplacé wu. def daraawam dem ci kër diine yi gis ngeen ni ñu koy accueillir gis ngeen le premier ministre fu mu dem nit ñi ni ko fay xaaree cofeel bi ñi dugg dëkk ci cité religieuse ak kilifa yi am ci moom ndax président de la république ku wax ñu ne yar bi dal bi kersa gi jub bi premier ministre ku wax ñu ne wax yar gi waaye courage bi parce que courage nag dafa bokk ci ay valeur islamiques dafa bokk ci ay valeurs religieuses au-delà de l'islam yoo xamante ne dafa war a caractériser un bon musulman mais un bon croyant en général kon la déstabilisation sociale sera vouée à l'échec xam nga li ci des mooy la déstabilisation politico-militaire loolu moom waxuma na ñëpp tëdd nelaw na ñëpp vigilant waaye am nañu réew boo xam ne c'est un pays debout du arme bu ñuy yëkkati léegi mais réew mi mun na fa toll parce que am na ñoo xam ne moom seen i moom jalal na leen Sénégal tàkk lu ko waree mooy événement mars 2021 nga bëgg a yëkkati benn dossier ñëpp ne boo ko yëkkatee réew mi tàkk nga ne da nga koy def par force gis nañ ko ci juin 2023 donc bu ay milliers de sénégalais di dee réew mi intégrité territoriale am ñu sape ko am na ñoo xam ne pour ñoom yegg si au pouvoir jalal na leen lu ko raw ils von marché sur des cadavres pour venir au mais personne ne l'acceptera kon toutes ces entreprises de déstabilisation avec ces différentes formes seron utilisées par le système et ses affidés pour nag volonté bi sénégalais yi am ñu barrer ko la route mais les jeunes de ce pays la population sénégalaise le peuple sénégalais fera face ci loolu nag ngeen gis entreprise yooyu xam nga ñan ñooy acteur yi am na ay acteurs yoo xam ne nit ñi xam nañ leen ñu affiché wu mais am na ay acteurs yoo xam ne c'est des acteurs encagoulés te souvent ñetti couverture yi mun nañ koo sol ñetti masques yi pour mel nii pour bañ nga ne leen yow ci opposition nga bokk wala yow da ngaa contre président Ousmane Sonko premier Ousmane Sonko wala président Bassirou Diomaye Faye nañu bàyyi xel ne déstabilisateur yooyu. mun nañ utiliser couverture médiatique naan journaliste nañ naan chroniqueur indépendant nañ wala ñu naan groupe de presse nañ yor nañu bàyyi xel ci ne déstabilisateur yooyu <laughs> mun nañ ñëw ne jël couverture religieuse jug pour dëddale sénégalais yi pour jaxase nañu bàyyi xel ci ne encagoulé yooyu mun nañ jël couverture de mouvement de la société civile ou de défenseur des droits humains te am na si ñoo xam ne am na ñu ma am respect donte boo wuteeg ñoom xalaat mais am na si ñoo xam ne <laughs> ba ñu rayee quatre-vingts sénégalais ñu leen exécuté des exécutions sommaires arbitraires extrajudiciaires ci tali bi nii ñi ngeen tiré bal déggoo leen woon ñu mus a wax tey ngeen dégg leen ñu wax am na si ñoo xam ne. yàlla nattu na leen xëy na peut-être ils sont de bon fois waaye dañu jàpp ne ils doivent verser dans un équilibrisme pour seen réputation non non il faut être avec la vérité boo amee ñaari camp même bu dee benn camp bi sur mille actes wala sur mille questions moo am dëgg da nga jox dëgg parce que dëgg la mais doone ñii critiqué woon naa la léegi kon kii il faut ma critiqué ko pour ñu ne man je suis indépendant pour ñu bañ ma ne man société civile nguur gi laa loolu aussi mun nañ ko xaw a interpréter ñàkk courage wala ñàkk conscience des véritables enjeux ak fan la war a jëm waaye ñi ma bëggoon ñi taxaw ci nag mooy acteurs yi affiché ne nag ñoom dañoo summeeku pour dugg ci langue gi langue opposition yërëm naa leen looy opposé nguur nguuru Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñoo xam ne compétence ñoo ci raw jub ñoo ci raw rigueur ñoo ci raw man ñooñu moom yërëm naa ñi leen opposé woo dinañ ci taxaw ci ñoo xam ne nag il faut nag ñu taxaw ci ñoom parce que kenn du leen bàyyi parce que amuñu xelu ak xam-xamu manipuler sénégalais yi mais kenn du leen bàyyi ñiy xëy suba ak ngoon amee rajo yi tele yi ak les canaux communication te li ñuy wax dara du ci dëgg ñi taxaw ci Bougane Gueye Dany xam naa di ngeen ne jarul tontu. mais dañ koy tontu parce que dafa am solo parce que yàlla moo wax walaw laa naa naasa baadoom bi baadul la huddimat sawaami'u bu taxul woon ñi jub pour incarner la bien niñ leen di jeñee pour ñu jàkkaarlook ñu jub pour incarner la mal kon kon adduna bi yàqu na kon màbbal nañ sax man yàlla samay symbole synagogue yeeg église yeeg jàkka yi kon il faut que mu am ñu taxaw tontu leen dañu koy laaj moom ex richesse am bi mu amoon parce qu'il ne plus riche et jàpp na ne richesse mooy seul mbir bu mu war a targué woo man entrepreneur laa man am naa xaalis ñii mënuñu am xaalis ay jiitu ay juuti man nañ fan la ko jëlee te c'était une richesse rapide bu gaaw boo xam ne fat-fat mu am xaalis fortune boo xam ne elle est injustifiée dina am lu ciy feeñ ci fan yu ñëw c'est extrêmement important parce que am na loo xam ne dafa yomb ci réew mi waaye chaque jour mu ne moom entrepreneur la def na ay preuve am tijji na entreprise kon ay fonctionnaire kenn du leen dénk réew loolu réew ku ko dégg rek xam ne kii amul xel ñaata réew nañ jënk ay homme d'affaires ñu yàq ko ñaata réew nañ dénk ay fonctionnaire ñu defar ko lu Lula travailleur la woon boo xam ne syndicaliste la tabaxul réewam Lula da Silva ca Brésil am na réew yoo xam ne fal nañ fa ay homme d'affaires yu mag comme États-Unis benn mandat lañ am nit ñi sanctionné leen après beneen mandat la ñuy xaaraat mun nañ ko bañ am comme mun nañ ko am est-ce que dañu bind ne yow boo mënee yor boutique boutique bi développé rek yow dañ laa war a dénk réew waaye moom sax mënut a yor boutique ndax entreprise yi mu yor fu mu mujj kaay na jooni jooni déggati ngeen ko kon boo naan entrepreneur laa dañ ma dañ maa war a jox réew yow li say entreprise noo ko yoree say entreprise naka nga ko yoree. ban modèle économique nga def est-ce que employé préserver nga leen est-ce que say groupe de presse ña fa nekkoon ay icône ñu ngi fay continuer di des ba nit ñi di fa bëgg ñëw mu nekk une entreprise attractive wala nit ñi dañuy daw nan nga gouverner sa entreprise ndax ku mënta yar kërum liggéeyu 3000 personnes yàpp sénégalais yi mooy taxaw nga ne da ngay bëgg a diriger 18 millions de sénégalais c'est pas possible waaye chaque jour mu attaque président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko. ñu lay xamal ne ñi ngay attaqué du ñu sa morom nawloowuñu la du ñu la mës tontu ñun ñi ñoo lay tontu ñun la JPS ñu lay xamal ni ñu ngi lay xamal ni lii caractériser acteur politique mooy nga am poids politique yow munoo yàpp Pastef te ñemewoo yàpp deux Pastef 2014 nañ ko créé mu participer ci cinq élections en 2017 trois ans après la création de PASTEF PASTEF dugg assemblée nationale am 37000 voix présidentielle 2019 PASTEF am 15 pour cent am 687000 voix jël troisième présidentielle. élection locale janvier 2022 PASTEF fal ay dizaines de maires législative bu juillet 2022 PASTEF fal 24 ba cinq députés. xawoon na imposer cohabitation assemblée nationale mars 2024 Pastef am 54 pour cent dès le premier tour et ses alliés lii mooy bilan wu Pastef en 10 ans yow sa bilan en 2018 dañ ko créé ba léegi ci weer yi dañ ko créé woon 6 ans parce que yow bi ñu lay créé sa mouvement boobu Pastef benn election rek la bokkoon boo bokkul kon élection yi ma wax ni yëpp da cee bokk muy ñeenti élection local 2022 damay wax sénégalais yi kii wax muy Bougane Gueye Dany lan la ko sénégalais yi nattal ci local 2022 ndax ñun département de Dakar nañuy defee politique communes yi fi gën a représentative yi fi gën a représentative Mermoz Sacré-Cœur bokku ci commune bu am solo la nag ñu ngi fàttali ne commune u Sacré-Cœur ci élection yi ñu jugee nombre d' inscrits yi c' était 24 261 inscrits Bougane Gueye Dany nekk candidat à côté de neuf autres candidats pour conquérir suffrage u waa Mermoz Sacré-Cœur 24 261 personnes ñoo inscrire pour voter foofu ba ñu tamee ci vote yi 11 565 waaye ñi nga xam ne ñooy nombre de suffrage valablement exprimé 11 678 la ci li ñu wax. xam nga ñaata ñaata voix la Bougane am 675 voix boo jëlee cent 675 voix sur 11 678 voix xam nga ñaata la pourcentage cinq pour cent lii la la sénégalais yi nattal sénégalais teg nañ la sa place waa Mermoz Sacré-Cœur teg nañ la sa place. te muy commune bu ndaw ci biir Dakar mënoo ko gagné 0,5 pour cent nga am sur les neuf candidats yow sixième nga jël bennoo ñoo la raw yeewi ñoo la yow ñoo la raw partie socialiste amoon nañ liste ñoo la raw gox yu bees ñoo la raw waaye am nañ ñu ñuy wax alliance des valeurs éthiques et citoyennes ñooñu sax ñoo la raw avec nga jël sixième kooku moo taxaw tey di di tëkku le président de la république Bassirou Diomaye Faye am naa jomaay moom malheureusement du du nelaw lu bëri mais bu doon nelaw moom xam naa day biddanti parce que loolu mënu ko teree nelaw mais bi ñu jugee ci local yooyu même local yooyu nga ne candidat nga ville de Dakar mënoo sax defar ñu teg ci juróomi weer kaay ñu dem législative juillet 2022 mënoo am parrainage mënoo am parrainage ay coalition yu mel ni bunt bi ma leen di saluer passage am nañ parrainage yow mënoo am parrainage législative 2022 amoo parrainage ñu jëm présidentielle 2024 munoo am parrainage waaye yéen kii ban pour politique la am lu dul yor benn groupe de presse am bu xëyee suba ba ngoon ñu koy xalamal muy wax di fëgg dënn te fu jongante ñëwee bu demee bu dee parrainage la du am mais alhamdulilah ren amul parenage léegi nañu dem ba xool ba xam est-ce que dina mën a jàllee plus fort reste bu dee tête de liste nationale la bu dee am na am na fit sax mu ñëw département Dakar. mu ñëw xëccoo liste départementale bu Dakar pour nekk tête de liste ci liste boo xam ne da ciy bokk Bougane Gueye Dany les Sénégalais t'ont remis à ta place depuis 2018 yaa ngi activé wu ci champ politique bi élection lay tax nga participer sénégalais yi sax dañ la présélectionné wul pour nga nekk candidat yi nga xam ne amul présélection soo demee c'est yow li ñu lay natt yow personnellement mooy yow sa poids au Sénégal 675 voix la am tama leer na ma ne wàññeeku na loolu mooy sa pois politique il est temps qu'on se suba ba ngoon stratégie bi mu jël mooy am na ñu ko xelal ndeysaan am Sénégal bi jëriñ ñoo xam ne dañ lay indi en erreur ne la Ousmane Sonko li mu am li ko may yëpp mooy ni mu doon attaqué Macky Sall dafa am courage kon yow il faut nga attaqué Macky Sall di dóor Sonko ci bu baax parce que loolu mooy tax sénégalais yi déglu la waaye ñu fàttali nag. ne da ngaa amnésique rek Pastef 2014 ba 2021 xam nga la moo ko caractérisé opposition argumentée et documentée lépp ci xam-xam nañ ko doon teg mooy parti bi ëpp cadre Sénégal ba ñuy réformer code minier bu 2016 Pastef dañ cee bokk indi seen xam-xam président Pastef nekkul fi di coo rek dafa bind livre pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation 256 pages. man livre boobu laa njëkk liir lire moo ma passionné ba man ma dem def master en droit des énergies et des parti boobu noonu ñooñu noonu nañu opposé woo ba dem ba Macky Sall dem ba mer parce que mënu leen topp moo ak régime am si débat wu idée yàgg na leen woo ci débat ci plateau ndax ku jàkkaarloo moom plateau mu effacé ñu fekk na ko si terrain wu songu ko ci ay mërs ak jug pour éliminer ko comme un adversaire politique jaar par la justice loolu moo tax Pastef jug nag taxaw woote résistance kon résistance su Pastef ak résistance Ousmane Sonko du résistance bu Bougane Gueye Dany de il faut mu leer résistance yi du benn ci contexte waaye résistance yi du benn ci façon def sa point de presse di nga ma rey mbaa ma rey la non Ousmane Sonko ba muy taxaw naan di nga ma rey mbaa ma rey la dafa woote Kër Massar ñoom jëy pro génn ay milliers de sénégalais fekk si ko te joxuñ kenn cent franc yow wooteel suba. théâtre national Daniel Sorano ñu xool ñaata ñoo lay fekk si wooteel suba foyer bu Grand Yoff ñu xool ñaata nit ñoo lay fekk si kon résistance su président Ousmane Sonko bokkul ak résistance su Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko n'est pas et sera jamais ton alter ego il faut loolu leer pour ku ne xam kan mooy sa morom di wax nag ne am na ci loo xam ne jàpp na ne stratégie la. parce que wax ji bu bëri bi yëpp ak virulence bi yëpp parce que am na lu mu jàpp ne moom lañ koy reprocher su dee fee mu ne kaay leen ngeen tëj ma ci wax pour ma victimiser wu. Bougane Gueye Dany man maa lay laaj lan nga wax ba bañ ku la tëj ci jëf lan nga jëf ba bañ ku la tëj ci wax ba bëgg ku la tëj ci wax lan nga def su des faits yu ñu lay reprocher. ba bugg ku la tëjee wax mais bu ñu la waree tëjee jëf jëf nañ lay tëjee kenn du la tëjee wax man maa la wax loolu c'est extrêmement important li may wax moom xam na ko kon nag yamal sa place nga liggéey ba mën a am parrainage entreprise yi nga yor wala alal bi nga amoon ndeysaan parce que buy wax da ngeen di sentir ne en lay waxee moo tax psychanalyste yi dañu war a xool nit ki est-ce feebarul parce que day day souffrir d'une maladie grave et bi lan la mooy maladie wu haine ak jalousie mooy mooy Bassirou Diomaye Faye gis nga ni mu doon waxee démb parce que non ce jeune là maa maa ko maa magee ñetti at Ousmane Sonko ñoo bokk génération pourquoi ñi sénégalais yi topp leen xër ci ñoom bëgg leen fonk leen ñu crédible fu ñu dem ñu tijji leen man mënuma am loolu te man man jàpp naa ne am naa alal loolu Sénégal doo ko fi mës a amee parce que crédible ci bëtu sénégalais yi te sénégalais xam nañ lu tax crédit crédible xam nañ la moo tax nga dem bay mer bay saaga parce que lu tax sénégalais yi nanguwuñ la wóolu ndax musuñ jàpp ne opposant nga loolu ñu ñun mënuñ ci dara kon nag fi ñuy daanalee ci chapitre Bougane parce que benn chapitre la woon bu ñu war a clôturer pour jàll ci leneen mooy Bougane Gueye Dany yamal sa place boo génnee suba huit heures huit quinze ñu def point de presse ñu JPS tontu la man maa la wax loolu et on te dira que ñi nga bëgg a jàkkaarloog ñooñ duñ mus a nekk sa alter ego et na nga xam ni li la war mooy yor say entreprise ci façon bu sell ba sénégalais yi wóolu say entreprise waaye nag li la war mooy nga liggéey ba mën a am parrainage bis boo amee parrainage après sénégalais yi dinañu la mën a bàyyi xel nga war a am voix au chapitre parce que nag démocratie c'est la loi de la majorité yow mënoo jàll parrainage nga bëgg am voix au chapitre mais même dans les sociétés africaines traditionnelles balaa ngay mën a wax nga mën a am xam-xam mais nit koo xam ne buy wax dafa doyadi doyadi doyadi il est d'une vacuité intellectuelle extraordinaire il est nul il faut le dire du xeebeel mais waa ji dafa cuune ndax mënu la aligner benn idée boo xam ne sa tient ci kanamu benn esprit mais bopp bi moo rangé wul ngeen baal ma ci wax ci non c'est ça parce que bopp bi moo rangé wul mun ta wax ñaari ñaari ñaari argument yu dëgër munoo def calcul sax bu jaar yoon un plus un xamoo ne égal deux après nga bëgg taxaw nga ne yow yaay jàmmarloog régime bii nga xam ne booy énarque yi taxaw yi non man yërëm naa la kon nag yamal sa place li ma gën a yéem nag ci li wax démb mooy quand il dit que Macky moo ñu moom laa mere parce que moo ñu jàllax booy yi nga xam ne munuñu kon moom ñun ñun Macky Sall moo ñu fal parce que ñun Macky Sall ñaar lañ mun terewee falu wala bi ci jiitu mooy Macky Sall xeexoon ak ñun ba duñ bokk ci élection yi loolu la jéemoon mais mujj ko am parce xaaj na ko président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay nekk candidat kon dafa bëgg ne Macky Sall dafa waroon def tout ba ñun duñ nekk candidat par une élimination judiciaire ou politique kii est-ce que démocrate la wala Macky Sall kon jour élection yi dafa waroon def tout pour ñun bu ñu gañee mooy lan dëpp le suffrage populaire parce que ñaar moo fi am Macky Sall bu ñu mënul tere nekk candidat ñu dem élection Macky Sall mënul tere ba 54 pour cent yi am parce que moom moo la bokk kon ça veut dire que sénégalais yi ñoo voté 54 pour cent yi il l'a admis mu taxawaat ne Macky Sall moo tax ba ñun ñu falu kon Macky Sall moo ko mere te mu taxaw naan ay nitam ñoo ñu voté ay localité xanaa day mere ay nitam après nga taxawaat nga ne Macky Sall nga mere mel ni Macky Sall mënoon nañu teree falu kon yow day wane yow esprit bi nga am ci démocratie mooy nit ku yor pouvoir dafa war a xañ ku ko neex du falu parce que kii incompétent la musuma gis ku cuunewee nii musuma gis une telle inculture démocratique et politique kooku taxul ba kenn dellu ginnaaw kooku président Ousmane Sonko président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye duñu ko tontu ndax talu ñu ko ils sont sur des enjeux stratégiques yoo xamante ne franchement ñun ñi sax waruñu ko woon tal waaye am loo xam ne duñu ko bàyyi parce que il y va de notre responsabilité parce que nous a responsabilisé à la tête du mouvement des jeunes patriotes et nous devons faire face aux fossoyeurs de la République mais ñun ñi sax nawloo wuñ ko kon bu dee wóolu na boppam tuuti man de Pastef maa fa gën a néew xam-xam maa fa gën a nekk xale maa ngi koy invité à un débat public su bëggee demee ñu dem ci émission wu téléem yooyu ak journaliste yi maa ngi koy débat public kon ñooñu du ñu ay opposants yu sérieux yoo xam ne mun nañu tere yegg fu ñu bëgg a jëm ci opposant yooyu da ngay gis ñoo xam ni aussi ndeysaan ay jeunes yoo xam ne ñun xawoon nañ leen naw bi ñuy génn ndax su le plan médiatique am nañu benn rhétorique comme par exemple Pape Djibril Fall mais da ngay naan ils n'apprennent pas de l'histoire ou des faits naka ngay demee législative nga jàll plus fort l'est am près de cinquante mille voix ñu ñëw présidentielle deux mille vingt-quatre nga am dix huit mille voix presque le tiers de li nga amoon nga amaat muy zéro virgule quarante et pour cent mais xanaa nga jàng nag ci histoire que bi ñu la defee député ba léegi est-ce que sénégalais yi satisfaire nañ ci sa qualité de ma de de parlementaire. vous êtes satisfait. non, non si les sénégalais étaient Ousmane Sonko bi mu duggee législative te c'est même période bi la parce que législative 2017 juillet la woon. présidentielle bi ñëw nekk février bu doon deuxième tour day am mars 2019 donc même période bi la bii juillet 2022 mars 2024 donc même même même même même même même échéance yi la Ousmane Sonko plus fort reste la duggee amul woon sax nombre de voix yi Pape Djibril Fall amoon ten 37000 voix la amoon mais bi mu demee assemblée nationale ba taxaw jàkkaarloog sénégalais yi boobu la sénégalais yi xam ne député ngi doo ko am à l' assemblée loolu moo tax mu jugee mille courbe bi def nii yéeg ba 687000 voix yow ngay dem assemblée nationale avec près de 50000 voix un an et demi courbe bi wàccaat ba 18000 voix muy 0,41 pour cent interroger sa bopp est-ce que ci say prise de position est-ce que ci sa qualité liggéey en tant que parlementaire est-ce que tu as satisfait le peuple sénégalais yoon boobu nga jël baaxul boo ko continuer doo am dara ci kanamu sénégalais kon nag ñoom ñëpp muy Pape Djibril Fall muy Bougane Gueye Dany on les invite à des débats publics ragaluñu ko nañ ñëw ñu wax ak ñoom ci kanamu sénégalais ñu xam fan la dëgg féete argument contre argument idée contre idée fait contre fait texte contre texte chiffre contre chiffre soit dañ xam fan la dëgg féete ak lan mooy xam-xam aussi kon nag fossoyeur de la république yi parce que terme boobu Macky Sall la ko defoon mais terme dafa nice te tey la gën a nekk dëgg ak les ennemis contre la révolution antisystémique les ennemis de la révolution antisystémique du changement structurel du pays benn occasion historique nañu am pour leur faire face mooy élection législative yi ñu jëm muy 17 novembre 2022 2024 muy une élection décisive cruciale dans l'histoire du pays élection yooyu nag ñetti enjeu la am première enjeu bi mooy éviter ñu déstabiliser réew mi à travers l'Assemblée nationale wax naa ko sànq parce que les démons du système première premier instrument pour déstabiliser réew mi mooy passer par les institutions su ko defee suñu waxee ñu ne ah pouvoiru député yi la ñoom ñoo mun def motion de censure ñoom ñoo mun bloquer loi ñoom ñoo mun tax budget du jàll donc loolu il faut que ñu bàyyi ci xel loolu mooy premier enjeu deuxième enjeu bi mooy fexe ba defar une assemblée de rupture parce que ñun sénégalais yi dañu soxla ay députés de qualité pour contrôler l'action du gouvernement mais pour voter ñu ay loi yu mucc ayub moo xam ci ju gouvernement bi la jugee mooy loo xam ne seen initiative la mais évaluer ñu aussi les politiques publiques ñu xam est-ce que réew mi ni ñu koy yoree jaar na yor wala jaar yoon est-ce que fi mu jëm baax na mais ñetteelu enjeu bi mooy ñun dañu soxla may président Bassirou Diomaye Diakhar Diakhar fay majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour envoyer un message à la communauté internationale et au monde entier que ce peuple qui a tant souffert, qui s'est battu corps et âme, qui a donné sa vie, sa liberté, tout ce qu'il avait de plus cher pour déboulonner le système est toujours derrière les personnes qu'il a qu'il a placées à la tête de pays loolu dañ ko war a renvoyer comme message pour ñëpp xam ne askanu Sénégal dañu ànd ak gouvernement au Sénégal c'est un enjeu fondamental ñetti mooy enjeu wu élection yi nga xam ne moom lañ jublu muy élection 17 novembre 2024. enjeu yi nag suñu ko xamee ñun dañ ko war a mesurer ñu tolloog enjeu yooyu ñun ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal mais rawatina nag ñu ñu bokkal langue Pastef surtout les jeunes patriotes. ci loolu laay wax ne ñetti posture nañuy xaar si ñetti taxawaay bi si jiitu mooy ñu éviter la division. kon nous vous tenons un discours fédérateur quelles que les personnes qui seront investies sur les listes unissons-nous pour une assemblée majoritairement patriotique deuxième taxawaay bi mooy discipline mooy ci parti politique nañu nekk les règles d'organisation yi ñu tënk ak ki nga xam ne moo jiite parti bi yoon bi mu xàll ñun ñëpp nañ ci arrimé wu pour am ay élections législatives yu mucc ay pour notre parti politique qui est toujours jeune et qui doit apprendre à fonctionner comme un parti aux affaires ou au pouvoir kon discipline troisième taxawaay bi mooy mobilisation mobilisation soyons mobile pour dem conquérir suffrage ndax nag bu ñu fàtte ne retrait carte électeurs yi cinq jours avant élection yi lay doon te mooy le 22 octobre nañuy teg commission de distribution yi naam amul révision des listes électorales waaye ñiy bàyyoon seen carte yi ci sous préfecture yi ak préfecture yi nañu dem jëli ko ci commission de distribution yi suñu ko tijjee à partie du 22 octobre beneen bi mooy ñu dem représenter waat la liste de Pastef et éventuellement de ses alliés dans tous les lieux de vote muy centre yi ak bureau de vote pour sécuriser le vote et le scrutin ñetteel bi nag mooy préparer waat nag takk jàjj yi pour une campagne électorale exemplaire te loolu dafay laaj la mobilisation de toutes les instances du parti de toutes les structures de base mais de tous les jeunes patriotes en tout cas toutes les fédérations départementales de la JPS coordination communale yi section universitaire yi ak coordination yi nekk ci diaspora bi yéen ñëpp ñu ngi leen di woo a une mobilisation sans fay pour élection yi ñu dëgmal comme li ma wax soyons unis soyons disciplinés mobilisons-nous pour une victoire éclatante au soir du 17 novembre prochain et pour une assemblée de rupture au profit du régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Je vous remercie de votre aimable attention.